بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون beneen bi rek mooy almuhaasaba te mooy bi ci mujj mooy nag di régler kenn ku ne da ngaa war di régler def inventaire di comptabiliser sa mbir Omar bu Xattaab moo ko waxoon ne xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu dee leen régler seen bopp bala ñu leen a régler wazinuha qabla an tuuzanu dee leen peeseel seen bopp bala ñu leen a peeseel wa tazayyanu li lil ardil akbar nee na na ngeen di toilette di waajal présentation bu mag ba bis bi ñu lay présenté ci kanamu yàlla nee na dee leen préparé deel deel waajal présentation boobu de de ko de ko waajal te sa yénoo de ko defa taarlu te foofu nag lañ koy waajale du ak col gu rafet de du ab yaram woo diw de waaye la borom bi wax ne ne la ñuy présenté woo ci kanamam mooy bi xalbin salim gis nga ibrahima lam ka bi def ne is jaa rabbahu bi xalbin salim gis nga ibrahim bi muy présenté wu ci kanamu yàlla xol bu leer naññi boo xam ne dara ci ay feebari xol nekkatu ci yii ñu wax yépp fees ci xol bi xol boo xam ne wakiir lu ma nga ca xol boo xam ne sellal ma nga ca xol boo xam ne cant ma nga ca xol boo xam ne muñ ma nga ca xol boo xam ne yaakaar a nga ca xol boo xam ne ragal yàllaa nga ca boobu xol boobu xol vacciné nañ ko ba ay feebar dutu ca ne feebar yi mooy ay kiñaan ay rëy ay mbañeel ay xeebeel yooyu mooy feebar yi ne ci xol moom la boobu daan fii xulubihim maradun waaye su ca yee nekkee nag yi ci war a ne su ca nekkee rek am néeg suñ ko dëkkee ba pare ku fa ku fay dëkkati dëkk nañ ko occupé nañ ko ba pare xol moom kër la dañ koy occupé dañ koy coupé occupé ak ay jëf yu baax wala jëf yu bon occupé ko rek mais du dem mbidd xol moom du dem ak joor du dem mbidd teel ko occupé ak lu baax moo tax mu ne tazayyanu lil ardil akbar yawma tu'radun la taxfa minkum xaafiya borom bi ne bis dana ñëw ñu exposé leen ci kanamu yàlla kanamu bindeef yépp dara du nëbb xam nga loolu nag mel na tey ñu tegoon fee benn benn estrade boo xam ne ñépp dañu toog ñu ne diw yéegal nga yéeg ñépp di la xool lu mel noonu jar na waajal yow ma tubla sarair bis ba ñuy feeñal secret yi moo tax Omarul Xattaab doon wax ne toilette leen ngir bis boobu doomu aadama nag ku ne mën ngaa régler sa bopp borom bi nee na ku ne xam nga sa bopp boo tegoon say ngànt fële balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maazira waaye foofu nag la problème bi nag nee na ku ne xam nga sa bopp boo tegoon fee say ngànt waaye nag soo dee man nangam borom bi da nga naan waaye waaye wut wutal sa bopp ngànt waaw waaw wutal sa bopp ngànt même koor gi ki wóorut danaan mën di wóoruma waaye nag nangam dama mënta woor te mën na am ngant ya muy joxe ne moo ko tee wóor matul ngant joxewuma ku daal ne waaye dama bëri la wut sama liggéey daa doxul sama nangam nangam moo tax borom bi ne bu ngeen bàyyi woon ngant yi rek gis seen sikk waaye yaay gis sa sikk ba noppi nag muuraat koo ki ngant nangam nangam mooy sama ngant dama am ngant moo tax mu ne balil insaanu ala nafsihi basira doomu aadama mën naa gis boppam waaye walaw alqaa maazira ci kaw mu teg ay ngantam fële ah nangoo accuser boppam directement ne man mii kat war na maa seetaat saa bopp kat man kat maa def nangam def nangam def nangam bul andi benn waaye nag bul andi benn waaye reconnaître rek ne maa ko def jéem a sas nag génn ca melokaan yooya borom bi wax na ko nafsul lawaama moom ku ne am nga ko laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsil lawaama alxasanul basri rahimahullah ci tafsir aaya boobu mu ne kenn wërta dajeeg ab jullit lu mooy mi ngi yedd boppam nee na maasa aratu bi kalimati waaw wax gi ma wax lu ma ci jublu maasa aratu bi ëkkulati lii may lekk lu ma ci jublu maasa aratu bi surbati lii may naan lu ma ci jublu mu ne wal faajiru yam di xuduman laa yu aatibu nafsa ne dab kàccoor nag day dem rek waaye du yedd boppam ku gëm yàlla nag fa mu toll mi ngi corriger boppam mi ngi yedd boppam ndax li ma def waroon naa ko ni ma ko defee du noonu di yedd sa bopp te nag am courage boobu nag courage boobu suñ borom tabaraka wa taala mi ngi melal ñu gëm yàlla ñi nga xam ne dañuy régler seen bopp suñu amee rëcc rëcc ndax rëcc rëcc boobu foo mën a egg ci ragal yàlla léeg-léeg nga def erreur mu ne inna alladina taqaw ida massahum taifun min alcheytan tazakkaru fa ida hum mubsirun inna alladina taqaw la wax ñi ragal yàlla suñu demee ba seytaane laal leen seytaane nag mooy liggéey loolu moom moom ku rag ñi gën a ragal yàlla ñoon la gën a wiise man ñi kàccoor ba pare moom am na leen ci langam lañ bokk ba pare waaye ñi muy xëyee ka gont moom mooy ñiy góorgóorlu ci ragal yàlla léeg-léeg nag moo fakkatal leen léeg-léeg mu fakkatal leen waaye suñu fakkataloo borom bi nee na dañuy jógaat isa massahum taifun min asheytan tazakkaru ñu fàttalikuwaat fa isa hum mubsirun waaye bu nit waxee nag ne waaw ku bëgg a régler sa bopp nag nooy def ñu ne régler sa bopp ñaari xeet la xeet wu njëkk bi mooy al muhaasabatu qabla al amal bala ngaa jëf jënd jëf na nga njëkk a taxaw régler sa bopp ba xam mooy bi nga yittewoo mbir namm ko na nga taxaw bul gaaw a defagul mbir ma ba nga leerle ko loo ci jublu ak it mbir mii def geeg bañ gee def lu ci gën lii may bëgg a def baax na mais est-ce que bàyyi ko gënu koo baax wala moog bàyyi ko ñooyam wala boog def gee gën yéen yooyu yëpp war nga ko xool ku ñëw alxasan su masaa di bëgg a sarxe soo ko laajee dara danaan la taxawal ma seet ba xam ba seet ba xam lu ma ci jublu ma vérifier saa bopp ba xam lii ma lay bëgg a jox lu ma ci jublu waaw may ma rek mu daal di génne jox li de danaa la taxawal ma yéene ma xool ba xam waaw lu ma lu ma ci jublu dëgg-dëgg bu vérifier vérifier gis na daal gis naa mën naa ko def ngir yàlla seet naa seet daal mën naa doon ngir yàlla mu jox la bu seetee seet nag gis ne moom xëy na bëgg ruus laak ñàkk fexeek bëgg ngërëm ak mu laa bàyyil ba ëllëg tey daal mënuma ko waaw du ma ko mën moo tax suñu ko waxee rek isa araada an yatasaddaq bi sadaqa tasabbat fa isa kaanat lillahi amdaaha wa in kaana li xayrihi tawaqaf bu ko seetee gis ne mën na koo joxe ngir yàlla mu joxe bu seetee gis ne nag mënu ko ngir yàlla mu bàyyi naafi naafi om lu jubayr benn waaye da koo mas a dajeeg moom ne ko ci ab rob laa jëm ndax doo ñëw ñu dem mu ne ko kamaa anta atta an yi taxawal baa yéene taxawal ma yéene waaw xam nga da doon dem rek moom ay soxlaam jëbul jëbul woon ci armele benn waaye dab ko ne ko ah diw sàngam kat moo faatu ci armele laa jëm te ngaa ñëw ñu dem mu ne ko taxawal taxawal neel tekk may ma tuuti ma yéene ma xam ba xam danaa mën a yéeneem de fekkee yaa ma nar a yóbbaale rek ma yéene yéene moom wala ba lu may yaa ma yóbbaale rek ma bàyyi gis nga loolu ak mooy almuhasaba loolu mooy bala ngaa def jëf ji lay doon ñëkk a njëkk a vérifier ba xam fi mu ne koor gi am na ñoo xam ne dañuy woorandoo nii rek ngir aada ngir bañ ñu ne dafa ñàkk jom wala ñu ne daal koor gi ambiance bi dafa soppiku dafa neex ambiance la waaw ndogu yeeg yooyu daal ku wóoru doo ci bokk waaw situation bi am ci ngoon gi daal programme boobu daal moom naa ci bokkaale waaw yooyu war ngaa xool boo gisee ñu ne da ngay fanaanoo yéene ji guddi googu ñu ne weeri feeñ na vérifier sa bopp ci biir guddi gi waaw moom xiif beeg mbar wi lu ma ci nar a dugal ah seet ko ba mu yàlla de bu dul leneen lum mën a doon rek jëru ko leneen lum mën a doon bay boog a lekk ci naan ko kon loolu mooy almuhaasaba qabla al amal bi ci des nag mooy nga régler sa bopp gannaaw boo jëfee jëf ba pare kooku nag ñetti xaaj la nga régler sa bopp ci jëf ji nga doon jëf manqué manqué yi ci am maanaam léegi moom def nga ko ngir yàlla maanaam bi nga daataan woor yéene nga ne yàllaa tax ngay woor ba loolu wéy bi nga wooree ba koor gi jeex nag li nga war a njëkk a def mooy xool manqué manqué yi ci am ci koor gi li nga ci manqué ci jaamu yàlla gi ci nga saxal laaj sa bopp hal addayta hadihi al farida ala al wajhi al akmal waaw ndax farata ji joxe naa ko ca nëm gën a mate muxlisan fiha lillah ndax sellalal naa ko ngir suñu borom tabaraka wa taala wifqa ma jaa an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax defe naa ko ni mu jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon bul ne julli naa rek daal di taxaw fee de sant de déedéet laajal na sa bopp moom ndax man ni ma jullee ndax julli gi mat na sama xel mi doon génn di dem ci marché yeeg a ñëw ndax julli gi itam bi ma koy def sell na yàlla rek a tax laajal sa bopp seet loolu yow tontu yooyu mën nga koo tontu nit ñi mënuñu koo tontu mais yow mën nga koo tontu xam nga ba xam julli gi sell na yàlla rek a tax wala am na lu tax ndax itam julli gi dëppoo na ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti question yooyu war nga koo poser sa bopp ci gépp jaamu yàlla goo def ba noppi ndax mat na ndax yàllaa tax ndax dëppoo na ak sunna waaw jaamu yàlla gi war nga ci régler sa bopp loolu su fekkente ne gis nga ne manqué manqué am na ci te néewaane ku ciy mucc nga mottali manqué manqué yooyu bu dee ak farata la nga def ay naafil la julli farata la xëy na julli nga ko ba pare xëy na am na manqué manqué yoo xam ne nag eggul ci yàq ko bañ na julli woowu waaye nag yëg nga ne yow dana manqué dana wàññi tuyaaba nga def ay naafil la moo tax jaamu yàlla gu nekk am na naafil la gis nga koor am na naafil lay koor koor yi coobare wu yi gis nga aj makka am na umra gis nga joxe asaka am na sarxe jaamu yàlla gu ne tegal nañ la ci wet gi loo xam ne coobarewu boo xam ne moo koy mottali su fekkee rëcc rëcc am na ci nit ki itam war naa régler boppam ci ak moy gu mu def ibnul xayim rahimahullah dafa wax ne bidaayatul muhaasaba an tuxaarina bayna nicmatihi azza wa jal wa jinaayatik nee na soo defee mooy ni nga koy régler da ngay méngale xéewal gi la yàlla defal ak bàkkaar bi nga def nga xool ni ni ñu sore nga comparé ko ne waa man lii ma yàlla defal lépp ba noppi ma def lii mu mel ki la yore ci biir këram héberge la jox la néeg di la jox añ di la jox reer di la jox ndékki ba noppi nag nga xëy am loo ko yàqal ci biir këram waaw xam nga da nga yomba yedd lool bu la nit ñi yedd yow daal dëgg rek kii lim la defal lépp foofu la ñuy tàmbalee bokkul ak waa ju doxandéem bu jógee ci àll ba rek ñëw def fat ñaaxum dem mais yow ma fa ne moom ñu héberge la nga dëkk ci biir kër gi teraanga yépp ñu defal la ko soo defee yaay ëpp kersa day da ngay rus lool da ngay rus lool moo tax mu ne kon da ngay dendale xéewal gi la yàlla defal ak sa tooñ gi fa moo tax mu ne fa xiina idin yazharu laka tafawut soriwaate gi day feeñ wa taalam annahu laysa illa afuhu wa rahmatuhu awil halaak nee na nga xam ne dara desu fi lu may ak njëggalam rek wala alkande ndax yàlla li mu la defal ci xéewal ak yow li nga def ci mooy nit ki nag gannaaw bu réglé boppam réglé bu mel noonu day toog nag jotaay bu gudd xool nag meññet mi nga xam ne moo jóge ci loolu te mooy jëf ji mu doon jëf mooy mu jéem a jëf nag lu far bàkkaar boobu maanaam soo defeer bu bàkkaar ba pare ba yedd ci sa bopp ba pare bul daldi bàyyi noonu defal lu baax waaw defal lu baax lu baax mooy far lu bon innal xasanaat yushibna assayiat su ko defee mu daal di dabaatal tuub tuub ngay njëkk a def jéggalu suñu borom tabaraka wa taala daal di nag jëf-jëf yu baax bu dee koo tooñoon la nga defal ko lu baax bu dee foo sàgganoon la nga yokk say jaamu yàlla ca lool bu dee julli goo xam ne da ngaa tardé woon julli mbooloo boo ca jógee nga naafila ay naafila yoo xam ne rëccoo ko yare ko sa bakkan mi doon tàyyee la dem ci jullikaay ba nga teg ko sax lu gën a diis julli yooya asalafu saalix joxe nañ misaal yu yéeme ci loolu anas ibnu malik radiallahu anhu mi ngi wax ne dégg naa omar bul xataab benn bés mu génn ba dugg ci benn tool ci gannaaw kër gi defe nag moom doo nga fa ne defe nag kenn dégg ko nee ma dégg mu naan omar amirul mominin ñu ne yaay amirul mominin baxin baxin askay askay wallahi bu na yal xataab la tattaqiyanna allaha aw la yuadibannak mu naan hey Omar nag ñu ne yaa ci ne yaay amirul muminin nag nga defee ne yaa ci ne waaye boo ragalul yàlla yàlla dana la bëggal boppam lay waxal kat defee ne kenn déggu am na benn waay bu nekk di ko dégg muy wax ak boppam noonu ñu naan Omar amirul muminin nag nga defee ne yaa ci ne waaw xam nga loolu day rëy amirul muminin waaye boo ragalul yàlla bu may bëgg a jàpp ne di yëkkati mbagg naan maay amirul muminin yàlla dana la mbugal mbugal mu tara tara tawbatum nu summa ñu ne toog ne benn bés di régler ay mbiram mu calculer ab dundam gis ne am na juróom benn fukki at mu calculer bis yooyu gis ne ñaar fukki junni ak benn ak juróomi téeméer ci ay bis la waaw deux ans maanaam vingt et un mille cinq cent ci ay bis moom la juróom benn fukki atam yooyu doon mu dal yuuxu ne yaa waylata mu ne nar na maa dajeeg yàlla ci ñaar fukki junniy bàkkaar ak benn ak juróomi téeméer te nee na loolu su fekkee bis bu ne benn bàkkaar laa def waaye mu ne naka mook bis bu ne ma def nag fukki junniy bakkaar kon ñaata millions yi bakkaar lay dajeeg yàlla xam nga loolu mooy muhaasaba xoolal moom li nga jot a dund nga xool su fekkee benn bis bu nekk am nga ci benn bakkaar rek fi mu ne lu lu muy toll fi mu ne at miñ mi naan 365 suur la 365 bakkaar rek ku ko dajeeg yàlla kenn xamul lu muy toll kon loolu mooy rek la bopp te borom bi daf ko digle yaa ayuha allazina amanu taqullah wal tansur nafsun maa qaddamat li xadin nee na ragal leen yàlla te ne kenn ku nekk toog lu mu am ëllëg xam ngeen ne commerçant bi sax bu dul def inventaire léeg-léeg mu tëj bitigam ne woon jaayuma ngir xool ndax alal jiy dugg lépp moo moo ko kon taseer bi fees dell xaalis tiroir bi fees dell xaalis nga defee da ngaa bari xaalis déedéet marchandise yi jàmbur yi nga fayagut mi ngi ci kon war ngaa calculer xool li nga xam ne mooy capital bi ak li ci nit ñi am ak li ñu la amal ak li doon bénéfice boo xam ne nag yaa ko moom mais kii maase lay dem rek di dépenser rek loo laaj rek mu rocc tiroir bi rek joxe waaw defe ne moom moom xaalis boobu déedéet day mujj rek am bor yu mu war a fay marchandise yu mu andi woon war a fay seeni borom du ko mën a fay waaw kon ndee kii wut àdduna mooy def lu mel noonu léeg-léeg toog rek la boppam même wàllu état sax dañoo am lu mel ay inspecteur loo gis lu ne am na inspecteur de nangam inspecteur de trésor inspecteur du travail inspecteur de nangam lenn lu nekk am ñu koy seet ba xam demee na noonu kon yow itam nag yaay sa inspecteur bu bopp danañ la régler ji ëllëg nag waaye war ngay régler sa bopp ndax borom bi kat wax na ka doon régler na mu texee xoola kañ jox téeréem ëllëg yowmal xiyaam mu texe lu mu wax inni zanantu anni mulaqin xisaabiya gisal xisaab la wax de calcul sama sama sama sama kii bi tey compte rendu bii ma jot tey rapport bii ñu ma jox tey dama ko bàyyi woon xel moo tax tey mu rafet inni zanantu anni mulaqin xisaabiya waaye xoolal ka ko daawul def lu mu wax walam adri maa xisaabiya wa amma man utiya kitaabahu bi simali fa yaqulu yaa laytani lam uute kitaabiya ndax man walam adri maa xisaabiya man xaw ma woon luy luy luy luy luy comptabiliser luy régler gis nga kon ñaar yooyu fi am ki daan régler boppam di toog di wéet guddi di seetaat ay mbiram ndax yu baax yi moom jërul jërul nga koy wàññi naan waaye nag def naa nangam yu baax déedéet yu baax yi moom du sànku inna allaha laa yudiyu ajra man ahsana amala moo tax abdullah ibni masud ba mu fekkee gaayee ca jàkka ja benn waaye dajale leen yor xooxi tàndarma naa leen xooloo laa ilaha illallah ngeen fekk teg fee too benn doomu tàndarma subhanallah ngeen teg fee doomu tàndarma ba xam ñaata subhanallah lañ wax wala ñaata laa ilaha illallah lañ wax mu ne leen eh wàññi leen seen i bàkkaar bu ngeen dee wàññi wàññi leen seen i bàkkaar neel butal ay tàndarma yoo xam ne fenn woo fenn nga teg fee bàkk ba tàndarma jëw goo jëw nga teg fee tàndarma bu ngoonee nga wàññi ñaata tàndarma nga am ba xam ñaata xooqi tàndarma wala sa kurus kurus yii loolu lañ ci war di witt boo fenee dóoral per waaw waaw boo foosee randiw dóoral per boo jëwee dóoral per waaw amma subhanallah yi jërul dóor per yàlla yàlla moom moo koy comptabiliser boppam inna allaha laa yudiiu ajra man ahsana amala bu luñ la ca wàññi loowul jërul wàññi ndax du réer man nga loo ko loo ko wér di wér est-ce que mën ngaa dem fa yàlla wax ne ko man am naa fi nangami millions yi subhanallah waaw yàlla boo taxaw ci kanamu yàlla ne ko nag damay tiire sama compte sama compte am na nangami subhanallah am na nangami laa ilaha illallah donc loolu da koy xam ci kanamu yàlla loo fa am waaye moom dara du réer loo fa am rek ma nga fa wa nadau almawasina alqista li yowmi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kaana misqaala habatin min xardalin atayna biha xoole lim ci teg wa kafa bina xaasibin xaasibin yàlla nee na ma dàq comptabilité ñépp xaasibin la tudde boppam de xaasib wa kafa bina xaasibin waaw kooku kay moom moom mu la de gardel atayna biha lu mu tuuti tuuti dinaa ko andi dinaa ko calculer dara du réer kon nag li jar a calculer nag mooy say bakkaar ngir nga mën a xam nu mu toll nga tiit waaye fi mu da ngay defee ne fi mu ne bëri woy bakkaar te fekk ne yaa ko wëññul mais bëri na de waaw mi mel ne yow mi bindul say bor rek di leb gaa yi dem te bindoo ko rek léegi yoon kii ñëw ne fay ba fii kii ne fay ba fii kii ne ah yow yoroloon naa la fekk yaa dawul bind bor yi koo yorol bor bind ko waaye yow soo bakkaar boo def fàttaliku ko tuub ko te bañ caa dellusiwaat loolu mooy li nga xam ne mooy almuhaasaba moom itam nit ki war na koy defal boppam. te bañ a woru rek nag ci nit ñi not yi ñu lay may nit ñi xam nga dañ lay noté di la may point yow yaa baax te moo baax waaye fii moom dañoo doy waar bu ñu la fekkoon benn yoon benn waay siyaare si la fekk ngay jàng alxuraan rek foo ko fekk day jàng alxuraan foo ko fekk rek day jàng alxuraan te bi benn yoon la la ko fekk rek waaw xam loolu loolu la ñu koy seedeel nit foo ko fekk day jàng yow est ce que yow fu mu nekk fa rek faa dem ah foo ko fekk day jàng alxuraan te mën naa am sax yorul woon alxuraan ja leneen la ca des da koo denc waaw maanaam leneen lu mu doon def loo xam ne bu nit nee salaamaaleykum nga denc salafu saalix nag ñoom noonu lañ daan def ñoom buñ masaa di jàng alxuraan wala ñuy def ak jaamu yàlla soo ñëwee dañ koy nëbb waaw dañ koy nëbb bu dee xaalis la rek ñu yore boo bëggee lépp ñu leb waaye ñu nag safaan bi la ñuy def ko yoroon tëjoon néegam di wàññi xaalis boo dee salaamaaleykum mu dugal ca ron ngegenaay ba daal toog hee jamono ji de moom ak a naqari waaye bu fekkee kaamil la nag day gën a xaddame ko nag waaw moom ci suba ba léegi day maa ngi ci ñàgge mi rek waaw xam nga loolu ah salafu saalih ne ñoom kaamil boobu lañ day nëbbu ñoom pour nga bañ naan day jàng alxuraan dem naan day jàng bu dee xaalis rek duñ ko denc dañuy yore rek boo boo leen bettee ñu yor daa waaw man de lii laa fi yor bu fekkee da ngay ñaan ñu may la boo dee leb ñu lebal la boo dee wut ndimbal ñu dimbali la ñoom teguñ ko woon fenn diine ji lañ gënaloon àdduna xam nga kenn ku ne li nga gën a fonk ngay rawale li nga gën a fonk ngay rawale ki nga xam ne àdduna bëgg xaalis la ñuy rawale fi mu ne kenn nanguwul ko xam sa xaalis waaw waaye de say jaamu yàlla nag moom moom bu nit ñëwee koy kàbbar di julli rek ka jàng wax ne man lii laay def gis ñu bari sax ñoo koy nettali man de guddi gi damay julli nanga bi yoon koor gi wàcce naa ci alxuraan nanga bi yoon def naa déedéet kon nañuy régler war suñu bopp di bari lu ñuy tuub suñuy bakkaar te dars yii ñu jël tey nag ñu jéem koo dund bu baax incha allah muy asukur bii ñu waxoon léegi di sant xéewal suñu borom loo am ci xéewal bu ko nawee kenn bu ko nawee sa bopp bul jàpp ne kenn la jaari kudul suñu borom tabaraka wa taala te ñaareel bay na nga ca def la bëgg ba ca des itam muñ lu la yàlla teg fas saasa na nga dal di muñ gis nga lam ca teg ku muñ wa basiri sabirin alladina ida asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun suñ borom dana wàcc xéewalam ci yow yërëm la te dana la boole ci ñi gindiku bi ci système rida situation bu la yàlla tollale ci ay métti àdduna xëy na du ci sa diine xëy na diine rek moo war a wàññi ko moom mu naqari nit ki te diine ju naqari moom ju wàññi ko moom yàlla sax bëgg ko wala yarda li ibadihi l kufra yàlla nee na bëggul waxul wala yurid yàlla bu ne woon wala yuridu kon kenn du mën a doorub yéefar mais wala yarda la wax ndax yàlla lu fi am rek moo permettre pour mu am ko yéefar yi yàlla leen bàyyi ñu doone yéefar waaye nag neexu ko nee na wala yarda li ibadihi l kufra d'accord ci waaye su fekkee mbiri àdduna rek la moom mu manqué bu mu tax mu naqari la na nga jàpp ne borom bi tabaraka wa taala lii dafa gën ci yow mu jox la alal ak mu bañ laa jox mu jox la njaboot ak mu bañ laa jox na nga gërëm du tee nag la nga bëgg na nga ko koy ñaan waaye du tee lam def nag na ci sa xol sedd diine ju dollu gannaaw dong moo war a naqari nit ki yëg ne sa diine na nga meloon daaw ak ni nga mel ren ci sa diine loolu war a naqari nit ki su defee mu ñaan yàlla góorgóorlu jóge ci situation boobu yàlla nu yàlla nangal suñu jaamu yàlla defal nu tawfiq